di àddu wax ci leneen mu di Iran Ndao mi nga xam ne dal dinay jóg dal ci kaw Dof Ndeye euh, mi ñu jàpp ne rek euh, fi ne nii moom Dof Ndeye actualité la ci Sénégal li ko waxal moom moo di jëf jë na mu toll jël ay paaka di jamante Iran Ndao dal dina koy attaqué nag euh, di ko xamal ni ko moom du yàlla du yonent warul yor ay paaka nan day jamante attaqué nit ñi mu mel ni Iran Ndao dafa jógaat ngir rek xamal Dof Ndeye ni ko moom ci boppam ana rek lan moo tax mu bëgg rek di yor ay armu ak bandi bandilu saa su nekk Iran lu ñeel mbirum Mame Mbaye ak euh, kile di Ousmane Sonko ah, ci deux cent millions yi euh, ma Mbaye di laaj wala sax ma nga cey lum ca dolli ngir yóbbu ko ci daara yi mu xamal ko ne ko euh, xaalis boobu kenn du ko dugal ci daara yi mu mel ni moom Iran Ndao dafa jàpp ne rek kile di Mame Mbaye Niang ali ut ngir laaj boobu lépp xaalis waaye yorul na xaalis boo xam ne mënoon na ko def ci daara yi ana rek lan moo tax muy xaar ba récupérer xaalis bi ci Ousmane Sonko ngir yóbbu ko ci daara yi mu mel ni Iran Ndao dafa ferme ci côté boobu ne mu ngi xaar rek bo benn daara dal di récupérer bi lépp xaalis yemul foofu fa mu jeexale moom moo di wàllum politique troisième mandat ak le président Macky Sall mu mel ni fàttali na ko gor ca wax ja ndax le président maki Sall moo fi toogoon di wax ne lu ñeel mbirum troisième mandat nekkul ci xelam ba ci jamonoy 2019 ci campagne électorale présidentielle yu 2019 président Macky Sall jotoon naa taxaw ci bépp gox ci biir Sénégal di xamle rek ne bii mooy sama second et dernier mandat ci bu ngeen ma falee yemul foofu me bind nañu ko ci ab livre Iran Ndaw mel ni fàttali na ko lu ni mel en tant que kilifa diine ci biir réew mi di ko xamal ne que le président Macky Sall gor ca wax ja